jërëjëf bisimila ci yéenikaay ñu doore ak le quotidien le quotidien xëy fësal ci xëtam bu njëkk mbirum Mbayang Diop soxna soo si li nga xamante ni moo faatoon ab employé am foofu ci Arabie Saoudite fi mu toll nii nag ñi nga xamante ni moo di attikat yi jël nañ seen ndogal ni ki démb lu ñu décidé maanaam Mbayang jóob dañ koy condamné à mort dañ ko fas yéenee faat loolu la le quotidien xëy fësal yëral yéenikaay bi boo ci bëggee am lu la leer libération ñu ñëw dellu si li nga xamante ni moo xew ci biir France lu fa xew ab sénégalais moo doon jéem a def ab attentat bi ñu nee suba la élection premier tour présidentiel yi ñu jàpp ko nag ñu jàpp ko nag ak ñeneen ñoo xamante ni ay suspect lañ par le RED waaye tamit ak DGS yi réew mi quotidien ñu dellu si li nga xamante ni moo di mbirum sécurité ak politique moom nag di ñu ne Sénégal en pole position pour accueillir les investisseurs maanaam Sénégal ñu ngi taxaw temb ngir accueillir ñi nga xamante ni moo di investisseurs yi ci suñu biir dëkk bi yëral réew mi quotidien boo ci bëggee am lu la leer enquête moom dellu si li nga xamante ni moo xew ca Bettenty maanaam soxna yi fa faatu ak gaañu wax li nga xamante ni moom la gouvernement Sénégal def foofule ca bétante di ñu wax ne 420 000 francs ñi nga xamante ni ñoo ci ñàkk seen bakkan jox nañ leen ko ak it 43 000 francs pour ñi nga xamante ni ñoo jot a rëcc le président Macky Sall nag ñu ngi koy xaarandi foofule ca bétante yi suba incha allahu rabbi le chef du village moom di ñu wax ne mësul gis ñi nga xamante ni moo di kilifa yi ni toll ñëw ci boobule dëkk yëral l'enquête l'observateur moom ñëw ci li nga xamante ni moom la Souleymane Ndéné Ndiaye def Souleymane Ndéné Ndiaye lu mu def moo njëkk a wuyu ki nga xamante di président Macky Sall gannaaw ba mu woowee waa PDS pour ñu ñëw dimbali mu liggéey Sénégal moo tax l' di ñu ne Jules premier à l' appel yëral boo ci bëggee am lu la leer ñu ñëw ci Vox Populi tamit ñëwaat ci li nga xamante ni moo di Souleymane Ndéné Ndiaye wax na waaw ki nga xamante ni moo di Macky ba tey rek ci mbirum Souleymane Ndéné Ndiaye ci Zoom info moom di ñu wax Ndéné Ndiaye force le barrage di Macky u Macky yi les échos moom di ki nga xamante ni moo dem fekk si ki nga xamante ni moo di Macky Sall ñu dellu si waat ci li nga xamante ni moo di Vox Populi ñu dellu si waat ci Vox Populi Vox Populi moom xëy samp laaj di laaj ñan ñooy sàkku ñi nga xamante ni moo di xale yi waaye bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moo di CGID 48 virgule 1 pour cent ci ay auteur ñoo xamante ni ñoo di violé xale yi ñu ngi nekk ci diggu xale yi waaye it 22 virgule 8 pour cent ñoo nekk ci suñu biir famille bu ñu sukkandikoo nag ci bile bilan Vox Populi ñi nga xamante ni nii jot nañ leen a violé depuis décembre 2009 CGID moo ko wane toll na ci 400 cas d'abus sexuels yëral vox populi boo ci bëggee am lépp lu la leer. ñu dellu si ci les échos les échos moom di ñu wax ab coalition bu bees tàq dafa génn lu mu tudd Mankoo Taxawu Sénégal Mankoo Taxawu Sénégal nag dafa taxaw temm naan dafay bokk ci li nga xamante ni moo di élection législative yi 24 heures mu ñëw sekk ci waxtaan ak ki nga xamante ne ni moo di Alelo président alliance rurale pour l'émergence du Sénégal man Alelo président assemblée nationale muy laaj bu samp nag mi ngi ci biir 24 heures yëral yéenekaay bi ñu ñëw ci le soleil yéenekaay di ñu wax li nga xamante ni moom la ñu ci conseil des ministres maanaam intensifier li nga xamante ni moo di mise en œuvre ci promoville yi tabax ay tali waaye it li nga xamante ni moo di assainissement dëkk yi président Macky nag ñu ngi koy xaarani suba foofu la ca bétante yi ba ci biir yéenekaay le soleil def wax tontu ak ki nga xamante ni moo di Aliou Ndiaye directeur yi ci région yi stade ñëw di ñu wax ci li nga xamante ni mbirum football la mbirum football bi ak kan Henri Camara stade di ñu wax ne Henri Camara mi ngi wan yoon ñi nga xamante ni moo di ancien Lions yi lu mu leen wax nee na dañoo war a jaar ci li nga xamante ni foofu la ñu war a njëkkee stade moo ko wax Vox Sport moom ñëw ci wàllum basketball di ñu wax ne gannaaw ba Congo désisté ngir organiser li nga xamante ni moo di Afro Basket 2017 yi ñi nga xamante ni moo di fédération angolaise yi dañ ko bëggoon jël ngir organiser ko waaye état bi àndu ci benn yoon yoon rek yëral yéen suñu lamb ñëw ci Abdou Bakhoum persiste et signe Abdou Bakhoum lu mu wax nee na bu ñu moytuwulee Ama Baldé dootul bëreetil ki nga xamante ni moo di Assane teg ci nag naan sii sii boobu lu muy firndeel yëral yéen bi boo ci bëggee am lu la leer moo tax Abdou Bakhoum dellu si di waxaat li nga xamante ni moom la ragal lu mu ragal nee na bu ñu moytuwulee diggante Ama Baldé ak ki nga xamante ni moo di Papa Sow daañu ko reporté yëral suñu lamb boo ci bëggee am lu la leex soxna nja wax maa la ko digoon lii laa waxati tey ba ëllëg ma waxaat leneen incha allahu rabbi maa ngi ñaanal ñépp ñu yenn jàmm ak salaam fii la ñuy ndax keppee li nga xamante ni moo di yéenekaay yi